mbokk yi dal nak jàmm ci lii di uh, Go News ñu tàmbalee ko ak uh, xibaar yi. conseil des ministres bu njëkk ginnaaw téeméeri fan ci bopp réew mi lii nga xamante ne rek bi ñu ngi ko amal ni ki alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet daani nag des ci li nga xamante ne rek moom mooy histoire Sénégal naka noonu bokk na nag ci tab yu bees ñu daal di nemmeeku muy toll nag ci limu li nga xamante ni mooy juróom-ñett fukk ak benn ginnaaw nag ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci gën a ràññeeku ku ci mel ni kii di Ousmane Diagne ak it kii Nguuda Mbuup ñoom ñaar ñooñee nag ràññee nañu leen lool ci seen PTO ak parti politique bii di PASTEF naka noonu nag moom nag professeur bii di Nguuda Mbuup jamono ji nag dina occuper rek li nga xamante ne ni moom mooy njiital administration lii di port autonome bu Ndakaaru ki nga xamante ne nag moom mooy Ousmane Diagne moom itamit dina rek daal di jiite li nga xamante ne ni moom mooy fonds d'entretien routier autonome di FERA ci biir conseil ministre bu njëkk bi nag ginnaaw bi ñu fi toogee lu toll ci téeméeri fan moom jiital réew mi di Bassirou Diomaye Faye nag daal dina yëkkati rek ay ndigal daal di ko jëmale ci ki nga xamante ni moom mooy njiital gouvernement bi di Ousmane Sonko ndax nag ma ngay sàkku ci moom ti nag mu dem fële ca assemblée national daal di fësal li nga xamante ne ni moom mooy déclaration de politique général ginnaaw nag ba mu noppee naka noonu nag ñu mën a jàpp ni rep ab soulagement la ci li nga xamante ni jur na ko fi. ci wàllu euh, politique jëm nag ci ñàkk def li nga xamante ne rek moom mooy déclaration de politique général naka noonu nag ñu fàttali rek moom njiital gouvernement bi di Ousmane Sonko demoon na sax nag bay euh, bëgg def li nga xamante ne ni moom mooy déclaration de politique général feneen fu nekkul ca assemble national ginnaaw nag bi nga xamee ni moom jital réew mi daal dina koy génnee ci boobule xalaat Washington Dakar ki nga xamante ne nag moom mooy secrétaire d'État adjoint bu euh, états nag ci turu Kurt Campbell moom nag mu nga daal di jeexale rek ab doxab nemmeeku bu mu amaloon bu toll si eh, ñaari fan fii ci biir Ndakaaru naka noonu nag ci biir séjouram rek daal dinay jot eh, gis ki nga xamante ne ni moom mooy njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay ci li nga xamante ne rek moom mooy waxtaanee diggante ñaari réew yi ana naka rek la ñuy def ba suqali li nga xamante ni rek moom la ñu door naka noonu yi tamit moom moomee di Kurt Campbell Sénégal ba tey rek daal di nañuy gis ki nga xamante ne ni moom ministre des affaires étrangères di wuyoo ci turu madame Yacine Fall daal di nañu nag amal ab itamit ki nga xamante ne ni rek moom mooy Birame Souleye Diop nekk ministre bu ñu dénk wàllu energi des mines et du pétrole moom itamit daal di nay giseek moom ci biir seen waxtaan nag daal di nañu amal li nga xamante ne rek moom la ñuy wax ab signature d'une convention de financement boo xam ne rek lii di euh, secteur privé national bi ba tey rek ñu mën a jàpp ni li nga xamante ne ni moom la ñu xayma jëmale ko ci wàllu convention boobu fësaluñ ko benn yoon ci seen euh, waxtaan naka noonu nag moom diplomate américain bi daal nay antu rek jëmale ci wàllu li ñuy wax coopération militaire bu dox ci diggante ñaari réew yi la mu xam ne nag moom mooy lii di Washington fas yéenewul benn yoon amal fii ci biir réewum Sénégal lii di ab base militaire open press bu nekk nag nag ab démonstration de force boo xam ne rek dañu tàmm di ko amal ginnaaw nag bu ñu jibbee li nga xamante ni moom mooy làmb bi dox ci diggante ñaari mbër ki nga xamante ni nag moom mooy Balla Gaye numéro 2 nag moom it rek mu nga doon wëy ca di amal li nga xamante ni moom moo nekkoon open de presse ba mu doon amal fële ca stade Amadou Barry bu Géejawaay mbooloo mu takk nag daal di wuyu si woon ca foofale ca Géejawaay ci bésu li nga xamante ni moom mooy alxames fukki fan nag juróom ñett mu nekkoon nag ab séance boo xam ne rek ay fansam daal di nañ koy wuyu si lool waaye tamit li nga xamante ne rek moom mooy ay partenaires yi leen di jàppale ci boobule liggéey daal woon nañ fay eh, teew ngir gën a yokk fësal li nga xamante ne rek moom mooy seen yëngu-yëngu naka noonu rek ñu mën a jàpp ab combat de choc moo nar am diggante ki nga xamante ne moom mooy tafaatin ak Balla Gaye numéro 2 moom mi nag ba tey di Balla Gaye ca nañ ko xamee woon rek bàyyiwul benn yoon yoonam ndax nag mu ngay tëkku ki nga xamante ne nii moom mooy Tapha Tine gën a rek ba di bëggal ay euh, fansam ci ginnaaw nag bi nga xamante ni daal nañu dëgmal seen euh, ndaje niki dimanche fukki fan ak benn ci weeru juillet atum 2024 fële nag ca arène nationale naka noonu ba tey kii di tafaatin moom it amaloon na li ñuy wax rek ab ndaje taskatu xibaar yi ci ci bés ba rek bi nga xamante ne rek la Balla Gaye daan amal li nga xamante ne moom mooy open press am fële nag ca Medina fa nga xamante ne rek moom tamit fa la cosaanoo tafaatin daal di yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci kii di euh, Balla Gaye ndax nag jàpp na ni dina daan ki nga xamante ne rek moom la ñu woowee le lion de Guédiawaye mu mel ne rek li ci des euh, bëreetul ñu xaar rek fu wànnent di mujjee ki gëtëm mbokk ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ci suñu ay yeneeni xibaar